téléspectateur Mouslih TV saa su nekk rek dañuy am mbégte bu baax a baax di ànd ak yéen fii si biir Porokhane di wéy la suñu waxtaan wi ñu fi sumboon rek maa ngi nii ci barabu soxna Jaareetullaahi ni ngeen ko gisee nii pèlerin yi bëri lool ku nekk jóge ci gox bu nekk ngir ñëw Euh, fii nga xamante ne mooy dëkk bu sell bi di Poroxaan ba tax na rek euh, damay fexe ci ñooñu nga xamante ne ñoo fi ñëw di siyaar si euh, kenn ku si nekk rek ma jël ko laaj ko mbégte bi nga xamante ne mu ngi koy am jëmale ko si biir ga si biir màggal gi waaye kazaalika yokkute wala jikko yi nga xamante ne nii ne jot na ko fee yokk bu baax a baax mbokki téléspectateur yi ba tey rek dañuy am mbégte bu baax a baax di wéy la suñu waxtaan Euh, sama yaay booy maa ngi lay ziar bu baax te di la laaj tur bi ak sant bi te di la bàyyi nga nuyu mbokki téléspectateur yi lay seetaan. ñoo ngi lay fay bu baax di la ziar di la jaajëfal lu bari man maa ngi dëkk Touba soxna Bali Dieye Touba Ndindi Sëñ Fallou waaw. macha allah Bally yi ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci biir Mouslih TV te di am mbégte bu baax di ànd ak yow suñu waxtaan soxna Bally ma gis bët yi xaw a xaw a euh, euh, xonq lool mu mel ne soxna Bally dafa dafa xaw a maanaam am am yëg-yëg am tolluwaay boo xamante ne moo ngi fa ndax mën nga ñu si indil ay leeral. waa ay leeral bu baax a baax soxna si ndax tey sama xol dafa fees dafa tooy ndax sëñ Moustapha basiiru sëñ Bassirou sax laa koy commencé moom mi nga xam ne moo sos moo sos Porokhane dekkal barabu soxna jaara bi ñëwaat tabax daaray maam jaara ba nga xam ne tey sama doom fa lay jàngee muy soxna jaara ndaw ma kontaan ci lool macha allah première ñëw tey ma fekk ko ca daara ja falaa dal mais sama xol fees na torop sama xol fees na torop damaa kontaan daal ba mënumaa wax ndax daara ja seen dara manqué wul macha allah am na ren juróomi otees yoo xam ne ni heure bu ñu xëyee ñoom ñoo koy bokkale juróomi téeméeri xale yëpp ñuy kontaan di leen ñaanal di leen jaajëfal lu bari sëñ Moustapha Bassirou yàlla yokk ko ay leer moom mi nga xam ne moo sos daara maam jaara ji sëñ Mountakha mi nga xamante ne nii tamit moo fa nekk nekkal fa xale yi ak sëñ Isaaxa Mbacke rakkam nga xam ne mi ngi euh, def parrainage boo xam ne mi ngi dem ba bitim réew ñoo ngi koy sant di ko jaajëfal lu bëree bari xale yi tey bi demee bi ma leen laajee ne leen seen kër ak daara ji fan moo gën a neex dañ ne ma daara ji moo gën a neex bi ñu ñibbi sax jooyul ñu sant bu baax a baax di gërëm mbokk yëpp di leen jaajëfal jërëjëf merci beaucoup. macha allah di sant bu baax ak di gërëm ñëpp suñu yaay booy bi dégg nañ ko bu baax xam naa nag du ma du ma sax mën a soreek moom ci waxtaan ndax fi mu toll nii moom dafa mel ni mu ngi waxee xol ba tax na rek dañuy daggee foofu suñu waxtaan fa seenee jàll ak yeneen i mbokki taalibe téléspectateur yi ba tey rek euh, saa su nekk dañuy am mbégte bu baax di ànd ak yéen ci biir Poroxaan euh, fi nga xamante ne nii ne fi la soxna jaareetulaahi di waajuru suñu yaakaar tey ak ëllëg xaadimal Moustapha euh, tëdd niñ ko gisee nii pèlerin yi bëri fi lool macha allah kenn ci pèlerin yi taxaw ak nii man soxna si ñu ngi lay ziar bu baax a baax Euh, di la laaj tur bi ak sant bi waaye di la bàyyi nga nuyu mbokki téléspectateur Mouslih TV yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. aouzu billahi mina sheytaani rajim mu ngi nekk Ndeye Fatou Diène jóge ba Dakar ñëw euh, màggal ci Porokhane. di ñëw fekk ci soxna jaara nag am ci mbégte bu baax am kontante mu ñu mbégte bu toll nii yaakaar naa gëj naa ko am ndax gëj naa poroxaan tey jii ma yëg loo xamante ne euh, lu ma gëjoon a yëg la di ci sant yàlla bu wér di ñaan at yi di ñëw ñu waat ko incha allah. amiin allahuma amiin soxna Ndeye faatu ñu ngi lay gën a dalalaat bu baax a baax ci biir Mouslih TV bi soxna Ndeye Fatou macha allah ñu gis colin bi macha allah euh, euh, maanaam yiw na daal tarkaal la ñu bëggoon a xam soxna Ndeye mi ngi fexe di tamit di fexe di roy jikko yi nga xamante ne moom la soxna su tedd si amoon ndax mu ci ciy fexe di ci maanaam bàyyi xel jëm ko jëm ko roy ah macha allah ñu ngi def suñu kéem kàttan ndax soxna si amaana soxna jaare kenn la woon euh, mel na moom dana jafe lool mais ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi jéem incha allah di ñaan yàlla rek mu def ñu ay soxna jaare yu ndaw. amiin macha allah ñu ngi ñaan euh, sëñ bi gën ñoo taxaw rek soxna si gën ñoo taxaw ba euh, gën ñoo dimbali waaye ba tey rek soxna Ndeye Fatou duma la bàyyi lan ngay ñaaxee sa mbokki soxna yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. di leen ñaax euh, ñu dolli roy ci Soxna Jaara parce que exemple la euh, boo xamante ne suñu réew lañ ko am jarul jarul ñuy dem feneen di fa xool leneen Soxna Jaara daal dafa ëmb lépp ci ci ci déggal li mu déggalee borom këram ci nangu bi mu nangulee borom këram moo ko may lii yëpp. maa ngi ñaan daal soxna yëpp roy ci soxna jaara incha allah macha allah soxna Ndeye faatu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di fas yéene wéyale rek suñu waxtaan di ko ànd ak yeneen i mbokki taalibe mbokki téléspectateur yi ba tey rek dañuy am mbégte bu baax a baax di wéyale suñu waxtaan maa ngi taxaw ak euh, kenn ci suñu yaay yi nga xamante ne dañoo ñëwoon ziyaare si bërëbu soxna su tedd si ba tax na dama koy nuyu di ko ziyaar waaye di ko bàyyi mu nuyu mbokki téléspectateur yi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan ginaaw loolu rek mu wax ñu tur bi ak sant bi ñu ngi lay ziar yaay booy. salaamaaleykum soxna Wade laa tudd. dëkk Dakar Caaroy Géej. voilà mhm. dëkk waa. macha allah suñu yaay ñu ngi koy dalal bu baax a baax ci biir Mouslih TV yaay booy ñu bëggoon a xam yëg-yëg bi nga xamante ne yaa ngi koy am ci biir màggalu poroxaan gi. ah màggal bi moom macha allah kontaan ci rek ndax mooy benn jigéen ju am màggal ji ndax jigéen ju nekk danga war a roy ci soxna jaara moom la ñuy ñaan roy ci moom lépp lu mu liggéeyoon sëriñam bu tedd boobu di Maam Mor Anta Sali ñun jigéen ñi ñu roy ba daal ndax roy ci soxna jaara daal lu baax la lu rafet la te ku ci def nag bu sooba yàlla doo ko réccu incha allah loolu daal laa mun ndeysaan mu doon kàddu yu am solo roy ci soxna jaara waaye mu doon loo xamante ne nii ne yaay boo it jafe na lool ñu bëggoon a xam ay jikko yoo xamante ne ndax di nga di di ñu ko mën a indi leeral jëmale ko ci soxna jaaratulaahi ah soxna jaaratulaahi de li ma xam ci moom ak li ma dégg ñu di ko wax ci moom te may dégg rek ndax fekkewuma dara ci moom damay dégg ñu di ko wax ci téere yi ak ñu ko wax te soxna jaara ku toppam borom këram la woon ku déggaloon borom këram la woon ndax jamono jii ku téye sàkket taxaw na soxna si téyel ma ma dugg ci biir fàtte la ci biir nga koy fekk tontu ko na ko sàkket bi duma ko sànni naa ko ndax duma toog ci asamaan si muy taw mu toog loolu lépp soxna jaara di ko dem dégg naa tamit da daan rootal ay ndongaam di root pot yi di ko wékk ci taatu garab yi pour bu ndongo yi maree ñëw jël si ko soxna jaara daal li ma xam ci moom daal néew na bari na bariwut ñun daal dañuy ñaan yàlla du roy ci moom ndax nee nañ jigéen ju baax la woon jigéen ju déggal borom këram jigéen ju topp borom këram waaw daal moom xamoon naa ko ci soxna Dia te dégg naa mag ñi di ko wax. macha allah suñu yaay booy ba tey yaay duma la bàyyi. Euh, ma lay wax rek yan kàddu ngay ñaaxee mbokki téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan waaye rawatina soxna yi. soxna yi daal maa ngi leen di ñaax di leen dolli ndax jigéen ju nekk rek war ngaa roy ci borom bis bii ndax mooy benn jigéen ju am màggal nañ góor góorlu te topp seen digalu borom kër di moytu ay tere di déglu ay ndigal képp ko ci def rek yaakaar naa ne doo juum te doo jaaxle ndax ñu ñuy jigéen ñu ñoo war a liggéey ba dee ndax ñun ñooy jur lu nekk nag ñooy jur lu nekk kon nag dañoo war a topp suñu digalu borom kër di moytu ay tere di def ay ndigal daal ah. waaw loolu daal moom yaakaar naa jigéen ju ko def doo ci am benn. conséquence daal lu lu baax daal nga ci mën a jëlee soobee yàlla incha allah. macha allah suñu yaay booy boobu ku ne dégg na réponse yi nga xamante ne indi na ko jàpp naa ne leen na naññ kon ba tax na rek euh, dañ koy jaajëfal bu baax a baax. Euh, ba tey rek euh, mbokki téléspectateurs yi dañuy wéyale rek suñu waxtaan soxna si ñoo ngi lay ziar bu baax a baax te di la bàyyi nga nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan à travers Mouslih TV. waaw delloo bu baax a baax di sant mbokki taalibe yi di santaat bu baax Cheikhul Khadim rawatina sunu maam soxna jaar Jaaratullaa ndax lii yëpp moom moo ko waral waaw jaajëfal naa leen bu baax. soxna Penda Seck ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci biir Mouslih TV te di am mbégte bu baax di seq ak yow suñu waxtaan wi ñuy bëgg a tàmbali soxna Penda ñu bëggoon xam ci ci ban dëkk ngeen bàyyeekoo ba egsi fii. ñun ñu ngi bàyyeekoo euh, Dakar. gi soxna Penda ñu bëggoon a xam ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee biir Poroxaan. man moom wax fa dëgg neex yàlla mosuma fee ñëw mais ku ñëw pour wax si ma demal rek benn benn façon wax nga may wax loo fa ñaan ren bu déwén balaa déwén di nga ko gis. te wax fa dëgg neex yàlla moom leer na sëñ Touba ni man bi ma ñëwee yëg-yëg bi ma fi am sax dafa taw fee depuis si ngoon ba tey. bi ñuy yóbbu añi kër maam Saliou Fall si laa yëg ni lii dafa taw feexe ñu ziyaar ziyaar bu neex mbiri sëñ Touba moom soxna si amul dellu ginnaaw dangay am amul dellu ginnaaw jubal rek lay doon jubal rek yow defal tout droit rek bul geestu kenn bul déglu kenn gumbaal taxlu boo bëggee bokk ci affaire de mouride bi te wax fa dëgg neex yàlla ku fi ñëw moom dégg naa ba sànni fi sa kàddu soxna jaar balaa déwén di nga si amaat lu la leen nañ ndax di nga ko gis. ñun soxna jaara amuñu fayam daal lu dul di ko jukkal rek di ko jaajëfal chaque jour. yàlla nañu fi borom bi bàyyi rek ñuy kenn kennal chaque jour Cheikh Ibra Fall te di dox si lu neex Serigne Touba. amiin soxna Jaaratullaahi amuñu fayam mënuñu koo fay ba ilaa yow mi diini ndax liggéeyam bi ku ne gis na ko waaye ba tey soxna Penda du ma la bàyyi lan ngay dénk sa mbokki soxna yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan. sama mbokki soxna yi li ma leen di dénk kay leen la muy xel sax moom matul waaye ñu góor góorlu rek nu ñu mën a def ba di sant Serigne Touba rek nañ koy def góor góorlu rek yokk bëgg Serigne Bamba ndax gis naa ni moom fi mu toll nii bëgg sëñ Touba doo ngay lépp si àddina bi nañ gën a góorlu rek xam naa ni sax ñu si bari jàpp nañu waaye na gën a dëgër rek li sëñ Mountakha naan jàpp leen si rek nañ si gën a jàpp rek bu soobee sëñ Bamba lépp dina baax. lépp dina baax ñu àndoon ak ki nga xamante ne mooy soxna Penda ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di wéyale suñu waxtaan rek di si ànd ak yeneen i mbokki taalibe